asalaamaaleykum internet enquête 221 point com asalaamaaleykum waa Sénégal asalaamaaleykum yéen li nga xamante ne yéenay seetaan à chaque fois seen émission artiste sur la toile ñooñu eh, jàlloon ak yéen bi passé si benn numéro bu am solo dalaloon ku mag si Sénégal muy góor gi El Hadji mbay tey ñu jóge ci benn daanaan danaat ci beneen daanaan muy Daba Seye Daba ñu lay bàyyi mais di la wax nag Daba artiste sur la fi nga dal dafa baax. waaw dañoo jóge ci ndaanaan mu mel ni El Hadj mbay Mbaye. ndeysaan daal di ñëw ci yow. Ah. loolu du hasard waa ah. waaw hasardul de suñu nijaay suñu maam nit koo xamante ni monument la fii Sénégal. effectivement donc sant yàlla la ngay jóge ci moom ñëw ci man. loolu defe naa ne bonheur sax lay wax. bonheur bu mag la ci man. voilà euh, salaamaaleykum euh, waa Sénégal. salaamaaleykum suñu mbokk internet yi di nuyu nekk fépp fu Sénégal nekk wala sénégalais. di nuyu tamit ñi nga xamante ni ñoom ñooy seetaan émission bi nga xamante ni moom la war a def Amina. merci d'abord kontaan ñu am mbégte mu rëy euh, di ñëw si sa kër am ak yow waxtaan. ensuite di la félicité aussi si album bi nga xamante ne moom nga génnee ni mu ni mu neexee ah. ni mu neexee waaw voilà dawa ni mu neexee lan moo neex mbëggee la neex wala àdduna wala dund. waaw li neex ci àdduna bari na nag dund gu ànd ak jàmm neex na jàmm entière neex na euh, mais album bi tamit ñi mu neexee woy yi ci nekk yëpp ba pare ñu fas yéene nekk nag ci yoon boo xam ne dañu ñaan yàlla mu neex Sénégal neex rek jëm ci kanam Amina. waaw bon dama mën nañ la considérer comme ambassadrice de la paix. Mhm. tu chantes beaucoup mhm. am na am na benn way boo génne tuddee ko jàmmu Sénégal jàmmu Sénégal. voilà ñëwaat nga tey. si sa ay analyse ci album ni mu neexee bi. Mhm. gis nga wax nga ci wàllu jàmm. waaw xam nga. comme ñun fi ñu juddoo nii dañu am benn euh, signe bu neex boo xamante ni ñun bi juddoo ba léegi loolu lañ fi fekk. Mhm. Sénégal dëkku teranga la dëkku jàmm la. donc moo tax may insisté ci jàmm boobu. Mhm. donc moom laa def sama concept boo xamante ni. fépp fu ma mën a dem rek concept jàmm laa yóbbaale. effectivement waaw donc jàmm ci la lépp xaj. très waaw. voilà euh, d'abord su ma la doon laaj moo gisee musique gu Sénégal. Hmm. waaw musique Sénégal Sénégal fi mu nekk moom wax dëgg yàlla ah jàpp naa ne mi ngi avancé ci benn côté mais am na foo xamante nag mi ngi fay suuxee bu baax. mooy bu ma doon am tey analyse ma ci def mag ñi li ñu liggéey dootu fi dañ ci wàllu musique mais xale yi lay gën a ñaaxaat pour ñu gën a am jom. Mhm. gën a am courage pour gën a continuer ah, continuité boobu nga xamante ni moom la fi mag ñi bàyyi. Euh, je m'attendais à cette réponse venant de toi xam nga lu tax. Mhm. Daba Sey bu këral ay ndaanaan. Mhm. Daba Sey boo xamante ne fi mu jàngee musique mooy ci ginnaaw ay ndaanaan yoo xamante ne lu ñu way kenn du ko sañ a dingat. déedéet donc boo joxul woon réponse boobu dina ma jaaxal. Mhm. Euh, li tax yokku tax sax moom ma laaj la ko mooy euh, yàlla daf la may nga def deux générations. mooy ñi la jiitu. ànd nga ak ñoom ba ñu ba ba ba ñu reconnaître li ngay def. tey nga am génération boo fi fekk. Mhm. am génération bu la fi fekk. Mhm. soo doon def benn genre comparaison si ana euh, ñaari yooyu noonu lan lay doon. waaw li ma li may li may wax rek mooy génération bi ci ñoom lay insister. bi nga xamante ni ñoo fi nekk actuel. Ah, nañu góorgóorlu gis nga kër dafa am lu bari lu muy def ci artist bi. Mhm. kër dafay may artiste bi force. kër dafay dolli artiste bi xam-xam mais kër. day tax artiste bi xam fi mu war a woy fi mu war a daanale fi mu war a yëkkatee ak fi nga xamante ni foofu la woy war a yem donc kër dafa am lu ouverture la ci artiste bi kon bu ñu rëyee dem defi ah, ah, kër war nga mën a nekk ci sa yoon sax ku la mag soxla la woo la nga ñëw pour sàkkuwaat xam-xam su ma la déggee bu baax kër mm. mooy mbappatu musique mbappat la ci musique <laughs> voilà waaw euh, beneen bi mm. xam nga musique euh, métier la yéen mm. métier ngeen ko def waaw comme tey suñu ne Mor Kébé ñu ne mm. caméraman. waaw Daba Sey chanteuse. waaw mais jàppoon ni musique bu Sénégal léegi nekkatul métier seulement que da ngay gis koo xam ne day jël benn yoon njëkk bu sànq échec ci yoon boobu rek ñëw dugg ci musique. ci la yàqoo Youssou Ndour dégg nañ ko fii. Mm-hmm. ak fi mu toll fi mu jugee ak fi mu toll. Mm-hmm. Kiné fi mu jugee li mu jàng fi mu jaar. Mm-hmm. ak Kiné mu tey Thione fi mu débuté ak Thione Seck tey. woykat yu mag yu bëri yu fi nekk yoo xamante ni métti lañ ko defoon ba tey ci lañu am sutura ci lañ leen xam ci lañ dem fu nekk ci lañ am teraanga boo ci nekkee def ko muy sa nga def ko muy sa métier nga def ko muy loo xamante ni da ko jël sérieusement mu ba ñu ànd ak caaxaan ba ñu ànd ak foog nga koy sellal mën nga ci am lu nekk ñun suñu borom mi ñu ci suturaal ci benn manière boo xamante ni sax danga naan euh, ñi ci nekk te xamuñu wala boog ñi ci nekk te farataaluñu ko. boo leen mënoon a jël tey waxtaan ak ñoom ñu def ko muy liggéey bu wóor bu am farata ci ñoom. su ma ñëwee ci tey li nga daanelee dafa am solo. Mm-hmm. mooy ñi ci nekk xamuñu boo leen jëlee. Mm-hmm. xam nga yoom ki ci jiitu. Mm. mooy sang ki ci doog a ñëw. dëgg la mais yéen tey ay sang ngeen ci musique yoo xam ne xale yi nañ leen mën a déglu. Mm-hmm. est-ce seen bopp xale yooyu. waaw que xam nga Amina dafa am lu am solo mooy gis nga. ki la njëkk ci nekk moom xam na contact fi mu nekk pour tàllal la làmp léegi imaginer nga jiitu ci nekk ki fëgg xamagul fu làmp bi féete yow yaa war a mën a jóg tàllal ko làmp bi woon ko accueillir ko mu dugg nga teg ko ci yoon bu baax man damay am habitude di dem ci mag ñi yenn saa yi sax ma bañ a dem jël sama téléphone laaj parce que xam-xam du doy. waaw xam nga mag ñi ñoo la may loolu. ñoo dëgg la. waaw mais yéen est-ce que maye ngeen ci seen bopp loolu. waaw mi xam nga des fois xale yi tamit dañuy am benn morso yéeg succès. <laughs> waaw dama nag kaay. Mhm. yéeg succès du crime Sénégal. xam nga lu mhm. tax. Mhm. du yow yaa fay yóbbu sa bopp. Uh-huh. mais nit ñi ñoo la fay puus. tey boo ci condamné rek am na ci am na ci catégorie boo xamante ni waxuma ñooñu. parce que am na ci tey nit ñenn ñoo xamante ni seen succès du ñoom ñoo fa yóbbu seen bopp. public bi moo leen fa yóbbu. c'est ça loolu c'est normal. Mm-hmm. mais daf ci am ci xale yi ñoo xamante ni donc euh, du duñu am sax jotu ñëw laaj la dañ lay daal di def wujju daal di lay def koo xamante ni yow ba ngay commencer ñoom dooraguñu. waaw d'abord nag dama mm-hmm. lay damay lay jox foofu xam nga lu tax. Mm-hmm. dafa mel ni dangaa ragal concurrence. non non non non. si ba te ñu ngi wax ci cadre xale yi. waaw bon donc concurrence ak sa morom. waaw dama ko def transition xam nga lu tax. dama seetaan sa. <laughs> concurrence ak ak sa morom. je tout à fait d'accord samay samay rakk lañu. effectivement yenn saa yi ma ñëw. génn sax ñëw ñu ni ma benn Momo Dieng jaar na fi seet la. Ah. wala Sidi Diop ñëw na fi seet la. wala Tarba Mbaye jaar na fi. ah loolu fierté lay nekk ci man. wala ñu ñëw sama kër ñu toog woyandoo waxtaanandoo man aw ma chance am ko ci yenn mag ñi. te ñoom mën naa wax seen mag la euh, te wax dëgg yàlla ñoom ñëpp ay ndaanaan lañ mën a woy trop nag mën li ñuy def. ah mais imaginer ak fi fi ñu toll ci seen moment. dañuy romb kër yu bari romb ay ndaanaan ñëw seet si ma loolu mbégte la ci man ah, ñooñu jamais ma concurrence ak ñoom. ñooñu damay am benn moo pour dolli leen ñu jëm ci kanam. yenn saa yi ma tëdd sama lal seetaan Sidi woo ko téléphone encouragé ko yenn saa yi ma toog seetaan Momo Dieng tëdd sama nekk seetaan ko woo ko téléphone dolli ko Pama Dieng noonu ba Mbaye noonu donc dafay am yu neex yoo xamante ni mhm. ñun artistes yi dañ koy sekk mais concurrence ak sa morom. d'accord naa mais xam nga lu ma mhm. posé la question bi. Mhm. dama seetaan sa ñu tuddal la si wàllu concurrence. Euh, nga ne yàkkamti woo. gisoo concurrence si musique. li nga gis moom mooy ku nekk bay sa waar. waaw moi je dis non tu sais pourquoi. parce que gis nga concurrence. day tax ku nekk xam fa nga féete ak ni nga toll. xam nga lu tax. Mm. Mm. gis nga course. <laughs> soo gisee ñëpp di dawandoo. Mm. ñeneen ñi nekk ci ginnaaw pay bi di daw. dawuñu pour bëgg daw de. mooy <laughs> daw pour romb ko. waaw mais xam nga ci biir course nag dafa am ay fas yu mënante. waaw moo tax fas yi ñi ci mënante jaruñuy concurrencer dafa am bayaar am naaru góor am futanke. waaw dafa am ci biir am bayaar. waaw dafa am ci biir fas yi. ay fas yoo xamante ne bu ci nekk rek fas la. waaw waaye bu ci nekk xam nga sa fi nga mën a yem. waaw xam nga mbayaar bi <laughs> mbayaar bi xool naaru góor bi xam ne moo ko mën. waaw xam nga yenn saa yi sax nit defe ne naaru góor dina raw te fekk ni fu tànke mën na jël pee. jeex na xam nga mooy li ma la wax fekk si nga ma ci li ma la wax. ni ngi noonu mooy ñii di continuer di daw. Mhm. a daw dañoo bëgg a romb bi. waaw mais nag moo tax concurrence baax ci musique. waaw na mais nag euh, xam nga dafa am lu am solo. man jàpp naa ni boo amee talent. nga xam ni yow li ngay def da nga koy def ak sa jom. da nga koy def ak farata. da nga koy def ndax ñi la jiitu mag la mën lool. di la déglu. donc amoo temps concurrence ak kenn donc da ngay def ndax mën-mën. def ak volonté. bi nga xamante ne suñu borom defal na la ko. donc amoo temps wu ko man bokk aw ma temps wu concurrence ak kenn. waaw mais mais mais xam nga xam nga une concurrence bonul xam nga man moo bon. Ah. une concurrence malsaine. waaw man jàpp naa ne concurrence moom bul concurrencer. si sa yoonu bopp am nga chemin. ok xam nga lu tax ma wax la loolu ah? naa am nga yoon. d'accord naa comprendre nga am nga yoon. waaw ah, d'accord yoon bi nga nekk. Mhm. nekk ci boo ci nekkee. Mhm. ñi la ñi ñi ci yàgg nekk tey xool ca xam ñoom ñooy dem ba fekk si la ci sa yoon. d'accord naa donc ñi xamul sax. Ah. mën nañ dem ba dab si la ci sa yoon donc bul concurrencer ak kenn yow nekkal ci sa chemin rek. nga dox nga dox doxal. doxal naa waaw coono <laughs> xam nga fu mu nekk. waaw daba ku nekk am nga sa yoon mais yoon yi dafa am foo xamante ne fa lañ def Carrefour. waaw dafa fu ñu daje. faaw daje am looloo tax concurrence baax. waaw mais nag c'est wax nga wax ji léegi nag boo nekkee ci sa yoon. ba àgg ci Carrefour bi. waaw xam nga faw daje am. mais bu daje amee nag ku ne da nga xam sa bopp. Ah, jeex na waaw damay la loo tax ko. waaw gis nga bu demee nag ba yegg nag Amina. Ah. léegi faaw daje am. Ah. yow bul concurrence nekk sa yoon rek. boo demee nag ba ci Carrefour ba nga xamante ni faaw daje am lii lu mënul ñàkk la. waaw boobaa nag ku nekk di nga xam. jaru concurrence ak nit ñi ñooy jugé. effectivement waaw nit ñooñu di nga xamante ne. Mm. kenn ku ci nekk Sénégal dañu bëgg sama mbërëm mën. waaw gis nga sama mbërëm mën sama mbërëm man euh, te bala nga loolu kenn du ko bañ xam nga lu tax. Mhm. damaa toog dégg sa boroom kër mu ne sama jabar dàq way senegal waa am na ci droit. man sax damay wax ni ma dàq way Sénégal. xam tax ma koy wax ngëm-ngëm la. ok loolu ngëm-ngëm lay doon. Amina bu ko neexee mu ni man maa dàq. poser ay questions. Sénégal maa présenté émission Sénégal. bu la neexee donc ngëm-ngëm la sa ngëm-ngëm la <laughs> sama ngëm-ngëm la sama jëkkër loolu wax loolu la gëm. waaw ci am na nit ñoo xamante ne ay nit ñu baax lañ yopp ay yor ay nopp gar mi. bu daba sëy yuuxoo ñu ne daba sëy fi man donc ngëm-ngëm la rek. mais peut-être keneen a ngi ci ruqam. Mhm. mën lu daba sëy mënul. daba sëy a ngi ci ruqam mën lu keneen mënul. affaire yi da ngay gëm sa bopp. Ah. ànd ak suñu borom. ok mm.